asalaamaaleykum yéen yëpp maa ngi leen diwu man maa ngi tudd Alain Lopez di gërëm waa Touba di gërëm waa Tiawan di gërëm waay Baye Niass maa ngi tudd Alain Lopez yaa may déglu mais réew mi doxul courant bi dafa cher loas bi cher garab yi cher Macky Sall yow la ñuy wax man mbis ci laay lekk mi ngi nii maa ngi tudd mburu amul quoi mburu amul Macky Sall xamal na heure boo wàccee sa samb ñi la jege yëpp kaso lañ jëm ndax réew dara doxul mi ngi nii mi ngi nii maa ngi tudd Alain Lopez. di gërëm waa Touba